الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال الحمد لله على دين الإسلام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من تين ثم خلا أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون wallahu fi samawati wa ma fi l ardi yaalamu sirrakum wa jahrakum wa yaxlamu ma taksibuun wa radiya allahu an taajil taajil aarifiin min kulli awliya allah abil abbas ibnu muhammad azalimi attijaani sharif radiallahu taala anhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaar tabaarakallahu di wax alhamdulilahi rabbil alamin ci fekk gi ñu ko fekk léegi ni daaw toogoon nañu fi ñaan ne yàlla yàlla nañ ko fekkee déwén comme saan wi dal na nañuy sosaat weneen mooy yàlla nañ ko fekkee te kenn bañ a manqué képp ku ci wéré di yàlla na yàlla saafara la ñu ngi jiital ci ñaan gi suñu yaay suñu wuyju tabaarakallaahu mu mel ni kon lii ndigal la loo xam ne nii sëriñ bi moo ko joxe woon waaye dama daan wax ne parce que bis bi li ko tàmbalee ca waxuma bon jullee timis waaye ban xëyee ba léegi li fi wàcc ci ay leer ay anwaar ak ay tajalliyaat doyoon na sëkk waaye nag zakir fa inna zikra tanfaxul muminin chaque jour bu ñu yeggaan ci waxtu bi moo naan Mouhamed jëlal micro bi nga fàttali gars ñi loo leen mën a baaxee nga baaxee leen ko li ñeen di baaxee nag mooy tabaarakallaahu ñu góorgóorlu ci jaamu suñu borom jaamu yàlla jaamu yàlla nag moom yàlla daf ko sant ñëpp ndax bi muy wax ci faatixa dane bi mu ne bismillahi rahmaani rahim dafa bàkk boppam ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani arrahim maliki yawmi diin lan la ci teg iyaaka naabudu iyaaka naabudu mooy kon yow ja ja yàlla nga war a jaamu danga war a jaamu yàlla waaye li tax iyaaka naabudu fi ñu ne boo ko seetoon boo ko déchiffré woon boo duggoon ci borom xam-xam yi ni ñu koy xoolee 159 158 la lay jox 158 mooy lan mooy allahu ak muhammad allahu muhammadu nga xool ko mu jox la 158 mu jox la kabidu ak xalbu nga boole ko mu jox la 158 lan mooy loolu xol mooy yëg ala bi zikrillahi tatma inul xulub ca jaamu yàlla bokk na ci jaamu yàlla sëriñ saalihu daf ko wax léegi ne bul xamoon ku yónent yàlla ahmadu danañ ko bàyyee suñ bopp ndax booy booy seet mel ni tarixa tijaan wala tarixa beneen boobu moom borom tarixa bi moom moo moo moom lijaasa bi <laughs> waaw tabarakallah tey jii yow li nga xam ne dangaa toog di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek te amoo ci benn ndigal danga tukki de waaye bee la mën a lijjanti ak cër bën koy jox lu bokk ak sa bos loolu mooy loo li nga am ndigal ak li nga amum ndigal ca ndigal li muy fooree mooy mi ngi mel ni tey sëriñ Seex ne yor rajo yeeg yooyu ni mu dajale fii yëpp fi mu li bu ko dajale woon installé kër geeg fépp mu def ko fépp mu def ko ba mu mat te amul benn fil boo xam ne jël na ko laal ko ci courant bi du ñu sam courant liy firnde bi mooy dangay gis léegi coupé na fi ñaata yoon coupé na ñaari yoon kon lan lu tax mu coupé mooy dafa am déclenche diggante ma courant bi loolu mooy ndigal ak ñàkk ndigal kon tabaarakallaahu waaye nag ñi nga xam ne itam léeg-léeg nga gis koo xam ne day nekk ci ne tiijaan la mais du yor tarixa wala boobu baax na trop waaye la gën sëñ bi nit ki boo nee murid laa da ngay dem nga jëli wirdu murid ñu bind la ca law maxus min allah ñu bind la ca list ba Serigne Touba bind la ci ay candidat ngay def lam la sant boo dee ab tiijaan la nga dem jël tarixa tiijaan boo dee xaadar nga dem jëy nga dem tarixa jëylaani nga jël ko ndax wëliyu yàlla da ngay dem ba toll ci moom foo xam ne léegi léeg da ngay gis wëliyu nga toll ci xaal dañuy nettali ne dafa am benn waay boo xam ne dafa jàpp ci tarixa tiijaan bu ko neexee léeg-léeg mu dem jàpp ci tarixa xaadir bu ko neexee mu jàpp ci bu léeg-léeg ay fan bu liggéeyee salaatul faatiha ba ci kanam mu teg ko jël tarixa ba ci kanam benn yoon muy dox benn àll benn jour muy dox ba ci benn àll gaynde mal ko mu dal di tiit ne yaa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Cheikh Sidi Ahmed Tidiane ne tëll di ñëw mu bàyyi ko fa ne yaa Cheikh Abdoul Khadir Jeylaani Cheikh Sidi Abdoul Khadir Jeylaani ne tëll di ñëw Seydina Cheikh Cheikh seen Jeylaani wàññeeku Jeylaani seen Cheikh wàññeeku mu des ak gaynde moo tax nañ koy bàyyi xel dañ koy bàyyi xel te ñuy julli ci yonent yàlla ahmadu sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo mën a xeetali nit ñi sallallahu alayhi wa sallam tawassalu bi jaahi fa inna jaahi ka inda allahi azimun wala azimun inda yàlla mënoon na ne ñëw leen ci man directement waaye fi ne ni booy seet lu ci baree baree baree bare rek foo ne yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lim yor yëpp jox na ko yonente yàlla ahmad sallallahu alayhi wa sallam moo tax salaatu ala nabi di ko bëri dina waral ngay gis sax yonente yàlla ahmad dina waral gaa yu baax yi nga leen di gis dina waral fajug aajo nañ koy bàyyi xel sallallahu ala muhammad moo ci gën a jàppandi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim jàppandi na lim am na ñoo xam ne utaluñ ko lim waaye am na ñoo xam ne dañ ko wutal ay lim tey 644 bi tey boo ko waxoon tey ji foo ko ne foo ko waxee rek da ngay dégg ñu ne ahamun saqakun xalahun yesun muy jalaal waaye juróom-ñaari muhammad la 92 nga def ko juróom-ñaari yoon mu jox la ko moo tax am na ñoo xam ne buñ amee soxla ñu jàpp jàpp lu set lu sell julli ñaari rakka luñ ca jàng baax na buñ sëlmalee ñu jël seen kurus di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa soxla julliwaat ci yonent bi 92 ñaan seen soxla ba muy juróom-ñaari adraka ma laylatul qadr laylatul qadri min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta matlaci lfajr sadaqa allahu mawlaana alazim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh waaw xanaa fa ngeen di nelaw est-ce que vous êtes là xay xàkk tey fa ngeen maa déggul fa maa nuyoowut fa ngeen maa fayut asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yàlla na yàlla defal jàmm ci barke salaamun hiya xatta matla'il fajr jàmm am na solo de guddi gi li muy rëy rëy sunu borom nee na A ba Z jàmm salaamun hiya xatta matla'il fajr kado bi malaaka yi wàccee ci guddi laylatul qadri tanazzalu almalaikatu wa ruuxu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xata matlai lfajr kon bu nu màggalee guddi gi buy dëgg bu sellee bu ko yàlla nangoo bu nu fi jógee jàmm rekk la ñu dañoo yaakaar na nag jàmm mooy grenade yi bañ a tàkk pono yi bañ a tàkk xeer yi bañ a jóg yaakaar nañ ne loolu mooy am jàmm laa ilaha illa allah ah hmm? première ñàkk jàmm mooy xel mu ñàkk dal te liy indi xel mu ñàkk dal mooy ñàkk jàmm yàlla li Cheikh Aji Mouhamad doon wax léegi Serigne Cheikh bi may dugg dégg naa ma koy wax tudd yàlla mooy dalal xel te bu nu ñàkkee jàmm sunu xel yi du dal lii tax sunu xel yi bañ a dal mooy ñàkk a déggal yàlla wa man ya'shu an dhikri fa inna lahu maishatan danka wa naxsuruhu yowma alqiyaamati ah ah ama yàlla nee na ku ma lànkal rek ma xëpp ci cere ji suuf bu ngeen may lànkal damay bàyyi ba ngeen bàyyi ma toog di leen xool seen dugub ñor ma toog di leen xool ngeen góob ma toog di leen xool ngeen bojj ma toog di leen xool ngeen soq ma toog di leen xool ngeen wal ma toog di leen xool ngeen ah ngeen mooñ ma toog di leen xool ah ngeen tay ma toog di leen xool ngeen toj seeni ogg ma toog di leen xool ràcc seen cere laaloo ma toog di leen xool ngeen defar seen ñeex di bëgg a sotti ci cere ji ma xëpp ci suuf hmm? booba léegi dañuy follee ko fal rekk ku ñëw ñu ne na dem Senghor la woon doy na na dem sengoor dem indi Abdou Abdou ñëw 2020 nu ne na dem na dem a dem a dem Abdou dem jox Wade laay 2012 laay ñu ne na dem na dem a dem a dem tey 24 ñu ngi naan Macky na dem na dem a dem a dem ku dikkit na dem rek doy na la ñuy dégg xam nga lu tax waaw dañoo nekk ci dëkk bu am borom te bàyyiwuñu xel borom di bàyyi xel ñim abal dëkkam kulillahuma maalikal hmm? mulki du moom la tuutil mulka man tashaau wa tanziu almulka mi man tashaau wa tuizzu wa tudillu bi yaddikal innaka ala kulli yéena ko wax de seex ji bi déggal yàlla maa moom nguur di ko jox ku ma soob maa koy foqati ci ku ma soob maay teral ku ma soob maay teddadil ku ma soob nee ma bi yaddikal xayr cere ji bu buñ ko jëlee dank te karajut ne ma man la su ngeen ma lànkalee loo rek ma xëpp ci suuf ndax innaka ala kulli shay'in qadir may def lu ma neex maa tey yàlla doo nga la ji moom doo ngay def ci maa tey li muy def keneen ku ko defoon ku dul moom tama ëpp lay buum li yàllay def wala déggu leen ma yàlla li muy def keneen ku dul moom bu ko defoon tama ëpp lay duum ëpp lay buum xam ngeen ko mën a jël góor gu tedd gii ci photo bii xañ ko mbooloo mii ñu dugal ko ci ruq bii ku dul yàlla bu ko defoon xam toog ci laylatul qadri sëriñ ba siiru Saar wuute fa tey bii ñu xañ ko mbooloo mii dugal ko ci pantere sii ku dul yàlla bu ko defoon xam waaye kiy def ci maa tayee ko def te bu ko defee ñëpp ne ko jërëjëf inna lillahi rek ngay dégg wa inna ilayhi rajiun Cheikh Abdoul Aziz Dabakh mi nu tuddee Cheikhul Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh taalibeem ba Ibnul Moubarak daf ko laaj ne ko sunu borom dane ku ma lànkal sa dund day xat damay gis léeg-léeg ñi weddi yàlla seen mbir di dox mu ne ko dund gu xat du lool de dund ko xat du lool de da gis ku sol yére bu rafet sañ sa jekk waaye ba léegi xàppiwul gis ku yor oto bu rafet tabax kër gu rafet waaye ba léegi xàppiwul xam nga luy xàppi xol la gis ko amul yére bu rafet warul ci oto bu rafet ah dëkkul ci kër gu rafet waaye mi ngi happy ndax amul maishatan dankan mu nekk ba la yàlla mayoon kasfu ba nga gis xolu yéefar ni muy yëngatoo fu mu toll tëf tëf lay def mu ne ko loolu mooy maishatan dankan mooy milliardaire bu féexagut tiimi ganaar di lekk mu lay saf saabu ñu taal kilim ngay ñaq problème am na hmm, problème am tiimi ganaar mu lay saf saabu nga taal kilim di ñaq problème na loolu mooy maïchatan dankan bonheur li ñuy wax bonheur nit mënu ko jox boppam yàllaa ko mën a joxe du ay al du milliard a koy joxe du lekk gu neex a koy joxe du ñaan gu neex a koy joxe mais nangul yàlla mu def jàmm ci sa xol moo koy joxe gis nga Sénégal fitna bi fi am léegi mooy mooy mooy fitnay xol yi léegi ñëppay mer ñëpp te kenn du la def dara yow ñàkkoo loo lekk ñàkkoo noo léegi nga añ ba suur naan nga sa taay ba noppi mer dañuy mer rek pour gars yi ree ree bu sérieux sax léegi da leen a jafe ndax dañuy mer rek ku ci ree sax day tiire sa ree bi te ree dafa war a neex ree yu neex ree yu neex wolof nee na ree yu neex waaye ree bu naqari di ree di gañ loolu siiñ la du ree xol mooy ree xol waaye bëñ nag mooy siiñ kon jàmm jooju nga xam ne sunu borom moo koy joxe yàlla na nu ko defal mooy jàmmi xol mooy jàmmi yaram ah gars yi léegi kenn mbaa wi rëcci na koo gis mi ngi wanni xoox wanni xoox wanni xoox rek ku yeewu wanni xoox booy tëdd wanni xoox xanaa kay wannu xoox baaxoon na boo feebaree dem hôpital ñu bindal la nga wanni xoox tane sànni say xoox waaye xoox yoo xam ne à vie foo toll luy wanni xoox problème la pour nga nelaw wan ni xoox damaa bari stress wan ni xoox sama karaw sax boo saa gënul léegi tey muy métti ma ne damay wan ni xoox ngir mu tane samay we day métti may wanni ni xoox loolu du jàmm fitna la mais fitna bi gën a rëy ci fitna yi mooy fitna yi réer a diine allahumma laa tajal musibatana fi diinina la yenent bi doon ñaan laa ilaha illa ay yàlla noo ngi lay ñaan fexeel ba bul def musiba ci sunu diine musibay diine mooy jullit bu am bag te ferul ijji musibay bu am bag te feragul ijji musiba la ci diine musibay diine jullit ba am licence sa xamagul faratay njàpp musiba la ci diine musibay diine jullit bu am pexe ba lijjanti ba business am yegg ci muy wàccee conteneur port te ba léegi xamagul nu ñuy sangoo farata te pexeem yegg na dem Chine jënd conteneur ñu yebal ko ko ci fañ ko ko yebal ba mu yegg ci pooru Ndakaaru mu dem dédouané ko génnee dugal ci magasin di jaay am bénéfice te ba léegi mënagul sangu farat jullit bu pexeem yegg Chine jënd fa marchandise def ci conteneur ñu indi ko pooru Ndakaar nga dee duwaañe ñëw di jaay am bénéfice di waajalaat siin ak Dubaay te ba léegi sa julli bu yàqoo xamoo noo koy defare allahuma la tajal musibatana fi diinina wala tajal dunya akbara hammina laa ilaha illa allah yenent bi nee na bul def àdduna muy sunu yitte ji gën a yëkkatiku bul ko def kon salaamun a hatta matla'il fajr yàlla nu yàlla defal jàmm ci sunu diine defal nu jàmm ci sunu yaram defal nu jàmm ci sunu xol bu loolu amee rek jàmm dafay am ci dëkk sëriñ Cheikh moo ne woon dafa laaj benn mag menn mag ca réewu naar ya ne ko waaw yéen lu tax seen réew yi tàkk ba léegi tëë fay mu ne ko xol yi tàngoor wa ca nekk di tàkk moom lañ tuur ci dëkk bi moo tax ba léegi fayul ñu nit bu nu yàlla dimbalewul tàngoor yi ci xol yi buñ ko tuuree ci dëkk bi baax na rek baax na Sénégal moom ñii rek a fi ne ñi yéeg ba noppi ak ñi bëgg a yéeg te yéegagunu ak ñi yéegoon bëgg a yéegaat ñett ñii rek a fi ne ñi yéeg ba noppi bañ a wàcc ñi yéegagul bëgg a yéeg ñi yéegoon bëgg a yéegaat coow li yépp ñee ko séq walla yàbdu nee na nañ ko def ndab rek ku nekk lekk ba rek gi jug sa morom toog lekk waaye buñ ko aakimu wax na ko ca wolofalam ba ma tuddee discours à la nation sëll la du bagaan bu bu leen ko sumbaxloo yàq kenn ku nekk na toog lekk bu reggee jub moromam toog lekk àdduna potu ndaa la da naan sa morom ah yow nga naan ne doo yàbbi pour sa morom naan ba dañuy nangu pot bi ah te du jur jàmm ah waa pot bi doon noo ko ci baay doon ko ci maam ñun ñoo pot bi able ko naanal mandi joxal sa morom naan bu paree ñu jox keneen mu naan jàmm am loolu junj la yàlla ñu yàlla may jàmm <laughs> waaw bu ma demee aaxiru zaman détaillé ko waaw nous sommes en ngaan euh, <laughs> waaw waaw nous sommes en euh, il faut junj quoi waaw il faut junj yàlla <laughs> nu yàlla fayal rasulullahi kooku mooy sang bi indi jàmm ci àdduna bi fa inna diina rasulillahi fiihi lana xallul mashaakili duniyaaha wa uxraaha sëriñ Cheikh nee na diinay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam régler problème mu àdduna ak àllaaxira yépp a ngi ci biir yonent yàlla Muhammad bi muy ñëw injustice la fi fekk man sa morom duma la fi fekk àdduna bi lëndëm la fi fekk xol yu tëju la fi fekk mu ñëw yàlla yónni ko ne ko ubbil xol yi iza jaa nasrullahi wal fathu wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja fa sabbix bi xamdi rabbika wastaxfirhu innahu kaana tawaaba ah bu loola amee rek xol yëpp ubbeeku allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq waaw xol yi tëju woon ci lëndëmu kéefar ak weddi yàlla ak bokkaale koog bañanteeg rayanteeg dumawante yonent yàlla muhammad a ñëw ubbi xol yi sol ci leer ak yërmande wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin ana rahmatun muhdaat nee na man kado laa yërmande yàlla laa joo xam ne daf ma defal ma nekk kado man sayidna muhammad yàlla ñu ko yàlla fayal yàlla nu ko yàlla fayal yàlla nu ko yàlla fayal moo tax mu ne woon ku ma nangu rek lépp baax nee na yéen ñëpp àjjana ngeen jëm Seydina Muhammad nee na yéen ñëpp àjjana ngeen jëm ba mu des ñi lànk Cheikh ba mu des ku lànk neen daal ñi lànkadul dugg aljana ñii bañ nee na nabi nee ñii bañ kenn du ci dugg aljana da ngay dégg yaay bañ sëñ Muxtaar nabi nee na kuy bañ du dugg aljana kullukum yadxuluuna aljannata illa man aba qiila wa man yaba ya rasulallah qaala man ataani daxalal janna wa man asaani fa xëdd ëba yéen ñëpp àjjana ngeen jëm ba mu des ñii bañ ku ma topp dugg àjjana ku ma lànkal nag yaay bañ lii rek le àdduna bi mi ci loxo yeneen yàlla Ahmadu bu ko ñëpp nanguloon àdduna bi dox ndax ci nangul ko lañuy nangule yàlla te nangul yàlla ci la mbir yi di doxee walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min alsamaai wal ard walakin kazzabu fa axasnaam bi ma kaanu yaksibu bu ma ñëpp nanguloon ma ubbi asamaan barke bi ci nekk wàcc suuf si barke bi ci nekk génn lépp neex lépp dox waaye da ma lànkal ma tëj yi ma tëj ngeen di wër caabi ji maa ko nëbbu denc ko xamu leen fu mu ne mukk da ngeen di wër ba sonn rek caabi àdduna bi yàlla teg na ko ci loxo rasulullahi mu joxe solution yi man ataani daxalal janna te ñaare àjjana lay doon fii ak fële bu ñu nangu le yenent bi fii dox bu ñu nangulee Seydina Muhammad fële dox waaye buñ ko lankalee fenn du dox atiu llaha wa atiu rasul ñaata yoon la ko yàlla wax ci alquran ak topp leen yàlla doyul waaye faaw ngeen topp seydina muhammad dem na ba mu yàgg mu ne wa man yuti rasula ataa allah bu leen topp yàlla ak yonent bi méttee të topp leen nabi rek bu ngeen di topp yonent yàlla ahmadu topp ngeen ma fa la teraa yam fa la teraanga yam atiwu laa wa atiwu rasul topp leen yàlla topp Seydina Muhammad mel nañ ñu ne ko yàlla loolu dafa diis topp la topp yonent bi day métti mu ne kon boogo man yuti rasula faqad ata allah bu ngeen toppee nabi rek topp ngeen xoolal day gàttal wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee gindiku réer gi ci àdduna bi lu koy indi dañoo toppal yonent yàlla ahmadu waaye nee na su ngeen ma toppee dangeen ngeen gindiku waa Màkka nag au ka ñu topp ko waaye dafa ñëw indi lim indi fekk fa ay ponkal yu am intérêt yu nuy sàmm fu njuba di nekk am na ñu ci dund buy njub di ñëw am ñu lànk ne du fi taxawee ndax am na ñoo xam ne nii ci lënd ndong lañ mën a dund buy leer seen mbir du yàqu moo tax ku nar a làmp ñu téye sa tànk am na ñoo xam ne ci lëndëm dong lañ mën a dund buy leer seen affaire di yàqu ndax woo duunu waaw duunu moo tax nay lëndëm yéefaru màkka yi woddu wuñu woon nabi ñëw nekk làmp qad jaakum min allahi nuurun run wa kitaabun mubiinun déggal làmp bi daa leer de <laughs> qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiinun ah loolu kum fekk solo tubéy du baax de xar ca dëgg-dëgg jaakum dikka na leen min allahi bàyyeekoo ci yàlla nuurun leer mooy sayduna muhammad wa kitaabun téere mooy alquran maam Cheikh Seydil Hadji Malick ne nuurun mubiinun atan nuural mubiina li irsaadil ibaadi kenn desul jamian rabbi allahu nuurun mubiinun atan nuurun mubiina li irsaadi ibaadi jamian rabbi allah رووت نورا حين الإرساد بديجة مئن ربي نور مبين يرنت على محمد أتى النور المبين إننا لير قبير دي القرآن لتخ لإرشاد العباد غير غير جبل جامني جميعا ربي الله law lam yalux fi kaw kawni talaatuhu tabqa albariyatu fi dalmaai yallahu waa kay la ma doon wax Maodo firi na ko lëndëm ga woon màkka gaa yi solu ñu tubéy bi na bi ñëwee yor lim ya dañ ne bu mu fi tàkkee bu fi tàkkee kat bu tàkkee du baax waaye yàlla ne ko faaw mu tàkk de mënuñoo dëkk ci lëndëm ku nekk na ubbi tu na uti tubéy waaye dafa am ñu war a solu te faaw ñu solu mun leen dëkk ci simiku lu ca xew lu ca xew keroog ba mu jibalee laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waruñoo am ku nuy jaamu ci dëgg jaamu nga di jëriñ ñàkk ga jaamu di lor kudul allah te fekk ñu yoroon seen yàlla yu bari moom mu ñëw ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad dañ ne ko du fi jibee mënuñoo am ñett téeméeri yàlla ak nangam suñuy aajo tëë faju nga ñëw bëgg ñoo woo ci jenn yàlla munul nekk munul nekk ñoo lànk sunu borom ne ko wa anzir ashirataka laqrabin tàmbaleel sa kër bay ci say om du moom la wala fax ah sama jarbaat thank you bay ci say oom la charité bien ordonnée commence par soi-même oui commence par soi-même commence par soi-même bay ci say oom wa anzir achirataka al aqrabin min baadi sabbin bul wayegum wa tadlilin wa tasfihatin axfaw lahu kulla ma axfawhu min idami min baadi sabbin gannaaw bi mu xëyee di ŋàññi seen yàlla yàlla ya wa tadlilin di sànkloo seen maam ya wa tasfihatin di deseloo seen xel ya axfaw ci lañ feeñalee lahu ñeel ko kullama lépp loo xam ne ak foofu nëbboon nañ ko min idami ci noonee seen yàlla yi ngeen di jaamu du dëgg seen maam yi dañoo sànk woon da a réer ñu ne ko ne tey nga dee dootoo ko fi waxatee asaddu durran min al aada abu lahabin ka gënoon a nooneel ak mbañeel ak lor ak i pexe kan la abu lahab moo njëkk a tuur deretu wala bakkanu jullit moom abu lahab ci lislaam mooy summaya summaya nekkoon jigéen abu lahab a jël xeej jam ko ko ci kanamam ci kanamam jigéen ci kanamam mu ñàkk bakkanam waa kër yaasir yi luy fitna ñu teg leen ko ba nabi naan leen sabran ala yaasir fa inna mawidakumul jan muñ leen rek amaguma pouvoir bu ma mën a jëflanteeg ñi leen di teg lu métti li muñ leen bu seen bakkan rotee ci lii xaar leen ma àjjana danaa leen fa fekk rendez-vous ba fa la ku ko gëm di làqatu ña nekkoon i jaam jëm gëm ko ku ci mel ne bilaal umayatum nu xalaf moo doon kilifa day xëy futti bilaal ba mu set mu teg ko ci naaj bu tàng bi naan ko weddil muhammad bilaal naan ahadun ahad mu naan ko weddil muhammad mu naan ko ahadun ahad ba kër gi sedd bilaal yëgatul tàngoor mu solal ko yëreem yóbbuwaat ku këram buy jant bi génn mu génnewaat bilaal teg ko ci naaj bi weddil muhammad mu naan ahadun ahad bis na bi jóge na ci jàkka ji rek dox romb bilaal fekk ñu ngi koy mbugal mu ne ko bilaal ahad yun jiik bilaal ahad dana la musal dem këram ñu tegal ko lekk mënul lekk moom Seydina Muhammad ndax ni mu rombee bilaal ak situation yi mu fekkee bilaal mënu ko supporter ñu tegal ko ndox mënul naan yaramam di daw mu jug sol dem kër Seydina Aboubakri ni Siddiq dugg nuyu ko ne ko Aboubacar inna bilalan yuazabu fillah Aboubacar Bilal ñu ngi koy mbugal ci yàlla rek génn dem bu doon da ngay xool yonent bi dafa tiris loolu la wax Aboubacar xol bi fees mu jël kaalaam tax ko ci gémmi ci bëtam rek wan ko ginnaaw aw Abubakar dégg junj bi ko yonent yàlla Muhammad junj pour ne ut solution ci Bilaal lii ñu koy teg metti na ko moom yonent bi Seydina Abubakar dem dugg ci koppar fooram jël fa kiloy or utali kër Umayyatu bnu Xalaf ñëw ne ko li ma fi indi lenn dong la mooy Bilaal nga wax ma luy njëgam ma delloo la ko nga libéré ko mu ne ko amoo njëgam mu ne ko lu mu mu ne ko kilo or laa koy jaay mu ne ko indaale naa am mu teg ne day kaf mu yëkkati ngisali yëlëb or bi ci kanamu umayatum nu xalaf jàpp bilaal ci loxo yóbbul rasulullahi waaw waaw borom kànjaa man maa fi kay waaw waaw alladi yuuti maalahu yatazakka wa maa li ahadin indahu min nicmatin tujza illa btigaa wajhi rabbihi l aala te wala sawfa yarda Babacar Sadiq a ko moom Babacar Sadiq a ko moom gars yi dañ ne ah Babacar mu def tagg la ci wut daawut daa bëgg poste rek bu ko nabi jox yàlla ne waxu leen dëgg de Jibril demal nga ne nabi Babacar lii mu def illa btigaa wajhi rabbil aala utu ci benn tagg ngërmandeel yàlla dong la ci ut jëmmu yàlla ji dong tax mu def ko waaye wala saw fa yardaa dana bég Babacar dana bég yàlla dig na Babacar ne yowmal qiyaam dana bég moo indi seen gàddaay ca xabasa bañ dëgg jib bañ lumière bi tàkk ñu xatal leen màkka bañ dem xabasa Éthiopie la ca xew-xew ca bañ dellusiwaat bañ looloo tax ñu embargo rasulullaay ñaari at yu teg ay weer aki fan bañ dëgg googu jib moo tax ñu embargo leen bi xatti man suura shallat kafuhu shalalan saxifatan kitabu waylan li mujj tërimi biñ dajaloo ba ne dañoo war bind benn pakk ay waay waay woy lan mbugal li muj tëri mi ñel na aji fàggu bàkkaar Mansuur lu ko dal salalan kafuhu woy lan li muj tëri mi bi xatti Mansuura sallat sallat kafuhu salalan waa kay looloo ko dal sallat kafuhu salalan ba ba lettre bay daanu rek la loxo ba paralysé ba mu bindee ba teg pilim bi rek la loxo bi paralysé yàlla ne ko yow sa loxo bi dootul bindati yow yaa bind embargo bi rasulaay dootoo ko bindati waaye ñu taf ko ca Kaaba ga ku ñëw liir ne d'accord ku gëm yeneen yàlla Muhammad fu mu ñëw di jënd ñu ne ko ca biti dañuy laal naan aywa moo yombale ñu naan ko duñu laal de ku la gën a seerle la ñuy dem jëndee ji fa moom dañuy lal ba ngoon ñu gëm yeneen yàlla Muhammad lambule kenn du jënd buñ ñëwee toll ci ñaan soxna kër gu ñu dugg ku ñaan soxna ñu ne la ca biti aka métti ñaani soxna ñu dàq la xoolal ma loo rek lu ko gën a métti amul toll ci takk am koo bëgg bëgg koo takk nga dem ci papaam mu ne duma la ko may aka métti ah? waa waaw guddi guddi guddi te tiis sax kay guddi guddiis te tiis ngay dund gaayu nabi yi ku dem ñaan soxna ñu ne duñ la ko may xam naa bu doon jamono jii la moor moom dana compliqué trop ci côté moom mi amagut ba tey waaw waaw sama caméraman bi ah! mu dem ba xajatuñu màkk ñu génn màkk dem mbaari ca àll ba la ñu yóbbaale ci dund jeex amatul lu ñu lekk xam nga lu ñu lekk buñ xiifee dañuy wër ci àll bi xool xobu garab yu tooy yi ñu dagg ci yey muucu ndox ma jàllale dem seet dex sëgg ca naan dem naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullah deux ans deux ans deux ans ñu ngi ci embargo bi bis rek bis rek lana toog rek sunu borom wax ak moom ne ko kaaba ga amoo fa accès mais kay ma wax la lu fa xew mu ne ko lu mu mu ne ko la bindoon taf ko ca Kaaba ga yabal naa max max na ko demal nga wax ko sa bàyyi tax Abu Taalib gaaw mu ñëw ci bàyyi taxam Abu Taalib ne ko yaa amu inna allaha sallata ardatan alayha siwa ma kaana min hakami bàyyi tax maa ngi lay yëgal information boo xam ne léegi la ma dikkal bàyyeekoo ca yàlla demagoo ca Kaaba ga man demaguma fa kaay ma wax la lu fa xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko yàlla nee na ma yabal na max max na lépp luñ bindoon ca këyit ba ba mu des bismika allahuma ja loolu doo nga fa des عليها سي وما كان للحاكم

yàlla yabal na max max na lu fa nekkoon ba mu des bismikallaahu abu taalib ne xaaral occasion la xam naa ne du waxantu tey la koy yéefar yi noppal nag dama koy téye ànd ak moom ba ca yéefar yi wax ak ñoom mu jàpp ci loxo na bi dem ba ci yéefar yi leen kaaba ga xam ngeen ne Moustapha mii amul fa accès ñu ne ko waaw dañ ko ko interdire munu fa yegg man it xam ngeen ne gëj naa fa ñu ne ko waaw munoo faa dem ndax da ngaa magee sa tànk woyofatul pour nga man fa yegg mu leen nag nee na ma yàllaam ji ngeen ko sonnalee am na lu mu ko wax ñu ne ko lu mu nee na yàllaam ji nee na ko kayit ba ngeen bindoon taf ko ca Kaaba ga yebal na max max na lépp ba mu des bismika laahum ñu ne ko ah yow yaa gëm sa waa ji mu wax mu leen di def leen daag li tax ma indi ko fi mbir la su fekkee li mu wax dëgg la embargo bi day dakk tey gaayam yi ñibbisi embargo bi kat la muy metti métti moom kenn génnewu ko ndax ba Abu Taalib moo tax Abu Taalib a tax ak Xadija Abu Taalib da mag ñu wekk ko Xadija yor alal protéger ko moo tax moom mbir màkk la toog génnu fa mais gaay mi nag ñoo fa xajatul génn ñu ne ko d'accord ak lan mu ne bu fekkee li mu wax nag du dëgg la ngeen ma demandé woon ma ne leen ngeen jël jant bi teg ko sama loxo ndey ndeyjoor jël weer wi teg ko sama loxo càmmoñ moo a gënal ma jox leen ko tey lay dakk dinaa leen ko jébbal lu leen neex def ñu ne ko d'accord nangu ne mu ne bind leen ñu bind signé ñu signé mu ñu ne nañ jàmm ndiiraan ma topp Moustapha ñu ngay utali Kaaba ga ndama nga ca gàccaa nga ca sama waaja ndama nga ca gàccaa nga ca Abu Taalib jël na risque bu rëy waaye xam na kim ko séqal ne du waxantu di ca Yàlla Muhammad bi ñu yeggee ca Kaaba ga fekk la mu waxoon am na mu waxee na mu ko waxee woon ñu ne ko noo njabaram yi la rek moom dafa bari njabar xam naa jinne mi ko ko waxati mu leen waaye amu leen pexe waa jigéen ñi nañ jox góor ñi ñu indil leen jarul ñu yegg si góor ñi lu ngeen di jëriñ foofu waaw jarul ñuy ñëw fii nañu taxaw foofu euh, kiyal kiyal kiyal ki salaamaaleykum waa kay thank you mu nga wok góor ñi nañ kii kii ko fii dafay jigéen ñi bañ a kii ñi ah ñu sunnatiser ko jigéen ñi jërë ngeen jëf thank you merci beaucoup góor ñi na am ko awu na am ko awu waa kay awu ko mu ngoog tabarkalla tabarkalla keroog la embargo ba dakk ñu dem wooyi gaayu nabiya ca àll ba ñu dugg ci biir mag amayni bal qiila jiimun kaana muddatuhu wa qiila baynahuma nahjal hudastaqimi maxtaar déggal sa maam Seydil Hadj Malick nee na xam naa ba xam ambargo bi ñaata temps la durée bi xam naa ko ñu ne ko Maodo bindal mu ne amayni am na ñu ne deux la bal li fi nekk qiila am na ñu ne ah bay na baynahuma am na ñu ne jiimun am na ñu ne deux ans la bal am na ñu ne jiimun trois ans la bal am na ñu ne baynahuma diggante deux ak trois muy ñaata muy ñaata ah déedéet muy ñaata yaa yéen a ci caagri bi toppatu leen ma toppatu leen ma yéen a ngi yi alaaji Malick Cheikh Sidi Hadj Malick dane embargo bi amay ni bal xiila jiimun kaana muddatuhu wa xiila baynahuma nahjal hudas taqimi amay ni ñaari at bal li fi nekk xiila am na ñu ne jiimun ñett at la li fi nekk am na ñu ne bay na huma diggante ñett ak ñaar la istak mi nag ne temm na jël hujaa ci yoonu jub diggante ñaar ak ñett lan la ah Cheikh Jibi def na ko deux yi deux ou trois ou benn deux trois c'est un et embargo ba jeex gaañe dellu si embargo ba daa jeex rek gaañe dellu si rek Abu Taalib faatu yàlla bu naree diisal sa yan ñi la waroon a jàppale ci yan bi yëpp day faat bàyyi laa ak yan bi yow kese yàlla bu la naree jàppale ñi la doon jàppale yëpp lay faat balaak boppam déggu leen ma de yàlla bala la jàppale ñi la doon jàppale yëpp lay faat balaak boppam nabi bi ko yàlla jàppalee la faat ñi ne woon ñoo koy jàppale ñëpp abu taalib lañ ko doon ruuseeg xadija mu xëy faat abu taalib ñu koy dëjal trois jours mu xaar mu faat xadija trois jours dëj bi saraxu ñetteelu fan bi la faat xadija ñu tuddee an ma amal xuzni atum njàqare yéefar nag jugaat nag ne ah jeex na Xadija ak Abu Taalib donc moo ñu si jaaxaloon gannaaw nag ñooñu yàlla faat na leen mission bi fi la yem ci la dem Taïf ci ay nijaayam waaw nijaayam yooyu ba amee ñaari at wala juróom-benn at ñii ne wa ama arbaatin aw sittatin halakat umu nabi bi ab waayin awi zuhami ñii ne amee quatre la ñiine ne ba mu amee six ans la yaayam amina ci la ko jël yóbbu ko taayif yoon bu njëkk laataa ba mu jàqee di fa dem bay ahmadu keroog ba ñibbisi ba demee taayif ba ñibbisi ca yoon wa ànd ak umu ayman la yaayam faatu quatre ans mu tiim yaayam muy sukuraat yaay ji di wax ak moom yonent yàlla ahmadu ak a diisi mbir ak a métti gane àdduna gisoo sa baay ñaari weer ci sa biiru yaay nga ñàkk sa sa baay quatre ans ñii ne ans sa yaay di la yóbbul ay mbokkam pour présenter la ay mbokkam say nijaay ànd ak sa jaam boo doon ne woon sa baay muy ummu ay man mu yóbbu la di ñibbisi jub màkka bi muy toll ab ca yoon wa ñii ne zuxam ca yoon wa ca la ko sutura sukkuraat mu jàdd ci ron keru garab tëdd tuuti yaram bi tàng moom mu yëg ne sukkuraat la naru la yegg màkk daa nar faatu fii ci àll bi mu ne am na message boo xam ne faw ma lancé ko laataa may faatu tim yonent yàlla ahmadou naan ko barakallahu fiika yaa xulaamu yabna lazi min xawmati lxamaami naja bi awni maliki lxalaami wa buddi xadaata darbi bi sihaami bi mi atin min ibilin sawaami in saxa maa raaytu fi lmanaami fa anta mabuusun ila l anaami diinu abika albarru ibrahimu fallahu anhaaka an al asnaami an laa tuwalliha maa al aqwaami doom kullu xayin mayitin wa kullu jadidin baalin wa kullu kathirin yafna wa ana mayitun waaye nag wa zikri baqin wa xad taraktu xayran wa walatu tuura doom baarakallaahu fiik yàlla na la yàlla barkeel yaay aminaay wax ak yonent yàlla ahmadu baarakallaahu fiika yaa xulaam doom yàlla na la yàlla barkeel yam na la zi min xawmati alxamaami najaa bi awni malikil allaam yow sa baay dafa am lu sa maam sartoon te woon ak yàlla ne bu ko ko mayee fukki doom mu rey kenn ka jaamoo ko keroog bañ woon telee bant ba sa bàyyi génn wa bu dii xadaata dar bi bi sihaami bi mi ëttin min ibilin waaye ba bant ba génnee sa bakkanu bàyyi dafa cher téeméeri gënam moo jot sa bàyyi wa bu dii xadaata dar bi bi sihaami bi mi ëttin min ibilin sawaami doom faaw ma wax la yaay kan pour nga xam sa bopp sa bakkanu bàyyi sa gëlé ma ko jot kon doo ko ndaw in saxa nag ndéem wér na maara aytu liñ ma wan fil ci ay nelaw fa anta yow doom ma usul ilal anaam bi danañ la yónni def la nga nekk yënant mission la nag booy wëyal diinu abikal barru ibrahimu sa diine baay ja ibrahim ngay wëyal fallaahu buur yàlla anhaaka tere na la jërëjëf xajji bi anil asnaami xërëm yi an laa tuwalliha maal aqwaami bul su juutal xërëm doom bul ko jege ndax yow missionnaire nga wax ko loolu ne tekk waxatul muy jooy ndeysaan bu doon dañ la woon benn image dañ naan umu ay man jox ko musuwaar muy fomp muy fomp ronkoñ ya ndax kàddu jom yi ko yaay ji kàddu jom yi ko yaay ji ndeysaan mu ne ko nag bul jooy tante Mariam <laughs> bul jooy bul jooy mënul ñàkk kullu hayyin mayitin kuy dund ku nekk danga nga dee wa kullu jadidin baalin lu bees lu nekk dana ràpp wa kullu xalilin yaf na lépp lu néew dana xëy dootul desati dara wa ana mayitun doom say nopp waaye tey faatu doom ju am 4 ans 6 ans nga tiim ko yow yaay naan ko doom tey laay faat imagine loolu yaay Amina di ko wax yeneen ci yàlla Ahmadou waaye nag wa zikri baqin sama tur dootul dootul fayati waaw waaw turam fayul de ñaata Amina la am ñaata Amina am wa zikri baqin wa qad taraktu xayran wa walatu tuura ndax maa la am yow yaay doom ji ñëpp doon xëccoo yàlla sédd ma la moo tax sama tur dootul fayati loolu la wax rek sedd bi liir bu gisul baay am quatre ans ñàkk yaay hmm? triste na triste na ah bu jotee kay ngeen wax ma damay xëdd kay Kaolack lañ ne nekkuñ nag bu doon Dakaaru sax ma kii fan la heure xëdd bi yam waaw ah, et ngeen wax ma rek waaw ko defee ñu def noonu rek ah lañu lan gaa yi kon xam ngeen li xew tabaarakallaa yàlla yàlla nangul nu yàlla bu mu doon sunu mujjug laylatul xadr waaw su ko defee ah sëriñ ngeen kii rek su ma kiiyee ba pare te kii bi kiiyegul après ma jug kiiyaat pare balaa ñëw kii dégg nga tabaarakallaa wa isa hallat ridayatu xalban yonente bi sallallahu alayhi wa sallam نسيتت للعبادة الأعداء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وإذا حلت الآية قلبا نسيتت للعبادة الأعداء سيدنا محمد ana ñi ko bëgg ñoo ngi nii wa iza hallat al hidayatu qalban wa iza hallat al hidayatu qalban nasitat lil ibadatil adaw ana kan moo fi gën a bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa iza alat hidayatu xalban yonent bi nasitat lil ibadatil adaw Seydina Muhammad wa iza hallatil hidayatu qalban نسيت للعبادة الآلاء وإذا حلت الهداية خلقا نسيت للعبادة الآلاء وإذا حلت الهداية خلقا نسيت للعبادة الآلاء na ñépp def ni ma way sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam wa idha saqqara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam وإذا سقر الإله ناسا محمد لسعيد فإنهم سعداء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورأينا آياته فاهتدينا وإذا الحق جاء أذى المراء محمد الأمين ورأينا آياته فديها أنا صفي سرين بسير سار نن يب دفني ووي سيدنا محمد أنا نيبغ شيخ بسير سار دفلني ما وي سيدنا محمد أنا نيبغ شيخ بسير سار دفلني ني وي سيدنا محمد أنا ني صف باي شيخ أبي سار def leen nii ma way Seydina Muhammad ana ñi bëgg mbaayu Serigne Cheikh Tidiane Sarr ba ñëpp def nii ma way Seydina Muhammad ku fi gën a bëgg mbaayu Serigne Matar mbaayu Serigne Cheikh mbaayu Serigne Saliou Sarr na ñëpp def nii ñu màggal mbaayu Dambaax Sarr waay na آياتي فاقتدينا وإذا الحق جاء زال مراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رابعة sabul xalaaw daf leen ni yu mag Seydina Muhammad am na ñu bëgg yonent bi waay waaye daf leen ni yu mag Seydina Muhammad rabi an darbahu sama wa marmaa وقد الذر النجوم إليه يرتب فأداءت بدائها الأرجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورأينا آياته اقتديها وإذا الحق جاء زال مراء سيدنا محمد ربي إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تسعى سيدنا محمد الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله allah allah e ɗum ɓeɓe ñumagal baji allah allah allah allah allah allah وربي سحر الله وربي وربي يا أرني بكبايس أخوك الله وربي سحر الإسلام يا ربي وربي سحر الإسلام وربي أخوك الله رافت فاس سبق الإسلام يا رب فاس ورافد فاس سبق الإسلام ورافد فاس وكم ورافد فاس سبق الإسلام يا رب فاس ورافد فاس سبق الإسلام ورافد فاس لقد كوني مقل سه ورم دردار ورم نتنا يا رب فاس سبق الإسلام ورافد tabaarakalla tabaarakalla tabaarakalla ah bu ñu yeggalee ci yi ne rek ñu yeggali ah bu nu yeggalee ci yi ne nu yeggali doon leen wan ne rek fu lu dul dëgg nekk bu fa dëgg bëggee installé wu du yomb te yàlla balaa ngaa xam ni mu manee nga bàyyee sa lépp tabarakallah ñoo ngi nuyu ñu fi teew ñëpp nag dama ñëw rekk door waxtaan wi balaa maa daaneel sëriñ ma mujjee nuyoo yi nuyoo yi nag ñu jiital ci sunu mag ji toog di sunu sëriñ di sunu lépp tabaarakallahu di cheikh Mouhamadul Habib di ko ziyaara di ko wàccee wàccuwaayam di ñaan sunu borom mu woyofalal ko yen bi di ñaanal sunu baay ja sunu sëriñ ba Cheikh Mouhamadul Habib sunu wayjur wa kenn du ko fàtte bi ñuy ñëw ci yoon bi rekk sama xel a ngi ci lu bare bare bare bari ci jataay ya rekk ca daara ca nga xam ni ku dul borom cër rekk mënul dékku daara daara ku dul borom cër rekk mënu koo dékk mën a toogandoog ndongo yi ak seeni benke ñenke seen lépp nga yendandoog ñoom di fanaanoog ñoom yeewu fajar yéexa a tëdd ku dul borom cër rekk mënu ko xoolal góor gi ñaata at la paase ci loolu ci dundam ba ba muy wuy ji boroomam nekk ci loolu loolu xalaat naa ci lu bari ndax dama koy faral di wax yenn mbokk daara yi ma ne leen mécceem daara mécceem nitu yàlla la al ulamaa warasatul anbiya ku dul boroom cër rek mënula toog di jàngale téere bi kooku nag bu fi bàyyee kook taxawaayam yu rëy yu rafet yooyu ku ñu ne yaa toog place am rek ñëpp war nañ la ñaanal jàppale la ndax woyoful yàlla yàlla dëgëral yal na yàlla dëgëral yal yàlla dëgëral an nasru wal fatxu wa tamkiin yal yàlla defal la ko di nuyu Serigne Cheikh di ko ziyaara bu baax a baax di teg nuyoo mbooleem fereer yi tabaarakallaahu ci loxoom di ñaan yàlla moom it mu dëgëral ko wéral ko yan bi nga xam ne yan nañ ko ko fa nii ca ndakaaru te mooy rekk lan daan yan woy jur ya ci fuñ mës a dem nekk fa loolu caareen la ci caareen la mooy fu ñu dem rekk bu ñu fa dëkkee diir faawu wàllu diine ñu jiital leen ca dara loolu ca maam yàlla du ñun fan yi lañ koy yenn def ko mu nekk imaam ca fa mu dëkk ñu ngi la ci ñaanal yàlla du cër bu ñuy ndokkelaati imaam félicitation ci pal gi moom loolu parti beneen bi ñoo koy faral di wax <laughs> mais félicitation imaam ba mu xewee ba léegi la jàkk yi lëj waaw nattu la boo xam ne dañuy ñaan yàlla mu woyofal ko tabaarakallah te dëgëral la ci bu baax a baax Cheikh Saalihu maa ngi wax ne tey tardé naa ndax bëggoon naa laa déglu lool la ma waxoon daaw rek laay waxaat taxaw leen ah, micro bii seen mikoro la fii ñu taxaw seen place la sunuy mag lañ fi wuutu yéen it da ñu fi wuutu jamono léegi dafa xat laylatul xadar dama daan ñëw bu ñaan suba la laa daan ñëw buñ ne suba la laa daan ñëw ah dem yàgg may fajaru di ñëw dem bam yàgg may ñëw bëccëg dem bam yàgg may ñëw tàkkusaan dem bam yàgg may ñëw timis tey bi may yegg si minuit jot na ah loolu ay wax la de <laughs> loolu wax la de te lu ci nekk rek du coobare nekkul coobare mais ni mu demee tax muy demee ni mu demee rek bu demee wuloon ni mu demee du demee ni mu demee ah léegi nag lu mel noonu buy am nag faaw ñi nga xam ne ñoo mel ne yow ñoom Cheikh Abdoul Aziz ñoom Cheikh Moukhtar ñu jël seen responsabilité ak ñeneen ñu dul yéen ca xam ne lii bis yéenay taxawee lépp laylatul xadar mën na jot ñu ne sëriñ Habib am na yitte ju ko dab nekku fi donte du ko ñaan yàlla waaye jamono moo ko indi laylatul xadar amoon nañ ko fii sëriñ bi wuute ko waaw wuute ko te mi ngi ci kaw suuf yooyu nag léeg-léeg dafay nekk yuy bette yoo xam ne bu amee na fekk rek ku ne fa nga waroon a taxaw am ñu fa taxaw te ñu ngi lay encouragé bu baax a baax xaw a yéex a jug moo tax ñu yéex a yegg si biñ ñëwee yi tamit demoon di waajaat ak yu ni mel tabaarakallah moo tax fekkewuñu sa waxtaan waaye bëggoon nañ ko fekkee lool sëriñ jërë ngeen jëf yal yàlla fay leen yal na yàlla dëgëral leen lii kóllëre rek la xam nañ ne ñàkku leen fu ngeen wéyee yéen a nga bàyyi Medina lu ni mel am ñu ngeen fa bàyyi ñëw fii loolu nag rëy na ci nun sunu làmmiñ ci làmmiñu Cheikh Mouhamadul Habib Serigne Cheikh jërë ngeen jëf du weccata leen fi indi du luñ leen jox yeewee leen ko moo leen fi indi mais kóllëre moo leen fi indi sëñ mar waa wax nañ ma ko sëñ àllam mi ma koy wax rafet na lool ah di nuyu nag sunu naataango yi sëriñ Alioune ak euh, Cheikh Abdourahmane ñoom sunuy wéttal lañ ci yàlla ah, sunu ñuy wéttal lañ ci yàlla tabaarakallah fu ñuy dem rek sañ leen a yëkkati ne leen jug leen ñu ànd ñu nangul nu ko mu rëy lool ci nun yàlla fayal ñu leen yiw sëriñ Mouhamed Sow jërëjëf yaa ngi sàmm la nga doon sàmm ba tey yal yàlla dëgëral sëriñ Mouhamad borom cër la nit ku baax la ah waaw waaw waaw naa ko mu ngi may sëñ Alioune wax na ma ko may waaj woo ko ba mu woo ma woote moom bu ma ko waajee rek léegi du sotti sëñ Fata laa koy wax léeg-léeg muy ree ay jamono daf daan dem buñ ko waxee dara rek mu ne dimbale ma rek fàttali ma ko defee ma jël note fàttali ko bu jotee ma ne ko waroon nga woo diw kat mu ne ma xii xaaral waaye léegi maanaan ko sëriñ doo ma dimbale di ma fàtte lu doy waar la ndeysaan bi ngay jàpp man di fàttaliwaate tey ngay soxla ñu fàttali la ay pexe amul ah ñu ngi lay masawu ci bant boobu nga ñàkk waaye nag inna lillahi ma axasa wa lahu ma aata ki saña maye saña nangu yal yàlla wuutalal la lu ñëw te toog yàlla dëgëral la wax dëgg nit ku tumuranke la Mouhamed saw nit ku tumuranke la ci jamono yal yàlla yàggal sa taxawaay Baye Makhtar Sarr jërëjëf Baye Makhtar jërëjëf Baye Makhtar jërëjëf xaw ma waliyu ni muy mel de waaye gis naa ci moom màndargay waliyu xaw ma nag waliyu ni muy mel ay moom mii gis naa ci moom njeexit yoo xam ni bu manqué ci waliyu waliyu ak wilaayaam des mhm. yal na yàlla sa guddal sa fan yal na yàlla yokk sa sëriñ As gis naa ko fi léegi moom it même taxawaay rek la lépp di rafet lépp di rafet tabaarakallah Ali jërëjëf Kebe jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen yiw way jur wa yal na ko yàlla yërëm jéggal ko lii dafa rafet lii yëpp kóllëre la jigéen ñi jërë ngeen jëf waaw jërë ngeen jëf di ñaanal sunu tante yi yaa ndey saaxo tante Mariama Jéey sunu yaay mbenn fay jërë ngeen jëf yal na yàlla dëgëral leen tante Mariama moom mooy sama yaayu daara loolu yàlla dogal moom bi ma ñëwee ci daara ji sama mbuus moom la ko sëriñ bi dénkoon ah, ca rondalam laa dugaloon sama mbuus su ma demee sangu néegam laay dugg jël samay yére taalibi bu xaw a bu xaw kii laa woon bëgg sañse <laughs> taalibi bu xawoon bëgg sañse laa waaw heure bu nekk laay dugg néegam te mosuma wax bu fi def li yëg loo fi def waaw ah, dugg néeg ba ah bàyyil affaire u karité nag seex <laughs> affaire karité moom bàyyi ko noonu rek mu sedd ndeysaan sëriñ bi ma ñëw ci daara ji xam nga Kaolack dafa bëri yoow yaay defaral ma karité yooyu nag nga xam ne da koy togg def ci ay parfum yooyu karité yooyu ñuy togg la ak tàngoor bi comme période bii rek ah ah ndongo lu ñëw ci daara xaw ma yooy yi man xaw ma tëdd ci suuf ma dem ñu lal suñ sa suñ suñ matelas yu nooy yooyu ndeysaan laa sànku ceeb yu nooy yooyu ñu daan lal rek te mu daan xumbo lool guddi <laughs> ah ma dem dugg ci mbaar mi nelaw nelaw yi të yooyu jàpp ma sëñ bi di ma ganale sama xel ne yar ne waa yow defaral nañ la karité wala nga xool ko maanaam xel ni mu doy xel li ma jox mooy su ma diwoo karité bi bu bu ma yoo mattee da ciy tag daal dootul naawati dafay yooyu jeex bàyyi ma ma dugg ma utali néeg tante Mariama rek jël sama karité man dañ bi ubbi ra diwoo ko ba niin batt batt waaye erreur bi ma def dama waroon a jël potu diw bi yóbbu ko ci mbaar ma diw waaye dama ko diwoo ci biir néeg bi génn fekk sëñ bi ñu ngi toog xam nga rek ay booru 22 heures ci guddi taal suñ làmp gaz boobu ñu daan taal te gaa yi daan bënn mees yi rek <laughs> yàlla bu ñu sëñ Basiiru jéggalul du baax waaw buñ demaan ba bañ jàng rek dañuy jël bant ba la rek dugal ko ci biir biir gaas boobu ndeysaan mees la nu mu tuddoon mention pas waa kay merci mention mention yooyu daan nekk ci kii ci gaz yi mention bi lañuy ñuy pëddëxal rek aca mu jeex bu defee aji Mohamed Gaye dem ne sëñ bi mention bi jeex na xaw ma wadd na rës na rës fekk rësul la ñoo ko rësal génn sëñ bi gis nga bi ma làmp bi ne tay foo toll gis ma may nes na si sëñ ne ma yow lii lu doon nii ma ne ko yooyu la yooyu waaw la waaw yooyu la ndeysaan daara ji souvenir u la waaw souvenir la ah tànn Mariama nag tabaarakallah ba ba may jógee ci daara ji loolu dakkul néegam mooy sunu sunu sunu néeg sunu néegu yaayu daara sunu lépp fa la nekkoon tabaarakallah moom mi tamit bu nu jéggalul ogg yi du baax li ñu wantanta Mariama ci oggam c'est te te te moo tax fu ñu ko gisee war nañ koy jox àllarbay oggu loolu waa daara ji ñëpp la ñëpp ci kaw ba ci suuf aji Muhammad ak ñëpp oggu àllarbay ogg moom ku ne yoral nga ko tante Mariama te ñu ngi ci boole woon caay-caay goo xam ne sëñ bi dañuy dem jël oggam ji sàcc ko dem dugg ci duus bi ku ñëw naan mm, mm, te xaraam ne sàngara dara oggam ji lañ sàcc tëju ji ca duus ba wala mu dénkuñu ko compter ko léeg-léeg bu demaan ba sonn day compter ogg yi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 xam nga léegi yow amoo pexe bu compter léegi amoo noo def munoo sàcc te day jaay ni ngay def da ngay jël ogg yi ruusal jël un ruusal deux ruusal trois ruusal quatre cinq ba neuf yi jeex nga am ci sëñ bi sa dànk yu baax a baax xéewlu ci su ñëwee wàññiwaat nga delloo ko ko dem sa yoon waaw léegi neex naa nettali waaye jamono yi buñ ko nettali woon bu oggatee duñu ko jox te mu ngi daan am solo ba nga xam ne noo ogganeex est-ce que yow est-ce que yi daan neex noonu mi ngi neexati ba léegi man ogg ci taalibe waaw ndeysaan ogg ci taalibe sëñ bi taalibe bu xiif midi wàcc midi noonu sëñ bi janax ju ñorul sax buñ ko ko rayalee mu lekk ko midi taalibe midi janax ju ñorut laa wax buñ ko koy tegal mu koy lekk ah ee nag moom it tabaarakallah yal na yàlla dolli sutura maam na koy ah maam noga it moom it xam nga rek baal ñu àq rek mu da daan ñëw ndeysaan jóge ko dëkk ba indi ay gerte ba yooyu bu mu teg de mango jaag yooyu sëñ bi buy teg buy wane ginnaaw balaa koo séddale ñu seddoo ko <laughs> balaa ko séddale ñu séddoo ko ah tabaarkalla yii yu am solo la yal na yàlla fayal ñu leen yiw yal na yàlla dolli sutura bu baax a baax a baax barke alxuraan dañuy ñëw ba toll bay jub Jurbel rek sunu sama xel dem ci wànnentu daara waaw mooy yi ma doon xalaat yu bari ci sëriñ beeg yooyu sama xel dem ci wànnentu daara waaw wànnent xam ne sëñ bi yàlla ñu ko yàlla fayal sëñ bi daara ji dañ doon toog rek apollo dugg fa sëñ bi ñëpp apollo ndoo ñu naan ñu ndoxu xoroma ci baax ak ku gënoon a métti apollo nag mooy Ablaye Sarr lay Sarr ak apollo bu bu bu ma bu ma sëggee sama bët day mel day tuuru xaw ma daal lan la damay ñëw ci yoon bi sama xel ci souvenir yooyu rek la nekk ma koy xalaat ndax euh, waaye nag alhamdulilah alhamdulilah yàlla ñu ko yàlla fayal yooyu nit yàlla yàlla fayal ñu leen yiw yàlla yàlla na yàlla yàggal te wéral yàlla na yàlla guddal fanu njaboot gi yëpp te barkeel leen képp ku jaar ci daara ji ne ko sëriñ bi doon ñaane yàlla na ko yàlla nangoo noonu waaye ku fi jaar rek yàlla nga barkeel noonu la ko daan ñaane ah defee ñu yemale foofu kàddu